rek doomam comme ni ma doon wax rek képp koo xamante ni tamit bëgg nga bokk ci li nga xamante mooy émission bi mën nga woote ci 77 842 19 19 ma jël ki nekk si ligne bi allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi noo def. dama yaa ngi en direct sur Feeling saa da ngay déglu da déglu ak téléphone bi nga bañ a déglu ak sa télé. alors mi ngi noonu euh, moom mi ci ligne bi nag ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni mooy. Euh, Euh, dagg gi nga xam ne dagg na ko xam naa du ñàkk ci kanam tuuti bu Davida man ak yow bu ñu waxtaanee ci li nga xamante ne mooy réaction soxna sa Ousmane Sonko boobu ndax gis nañu nag Ousmane Sonko depuis presque deux ans ou bien plus mi ngi ci ay jafe-jafe. Mhm. waaye mosuñu gis benn yoon jabaram génn réagir wala mu def naka su dul noonu. mais tey jii gis mhm. nañu ni mu doon fippoo ni mu doon waxee kenn yóbbu sama jëkkër ni mu doon wax ni mu doon wax mu nekk loo xamante ni dafa daw yaram Davida. Mhm. ñu tëj sa jëkkër demul dikkul loolu tolloog presque soixante jours deux mois. demul dikkul doomam ñàkk fi li nga xamante ne mooy examen dafa dafa dafa métti en fait comme ni ma ko waxee ci benn plateau matinal rek dafa mhm. nekk loo xam yëfu nit la en fait mhm. ji xam naa certainement ba muy fippu Abdou bu fekkee am nga image bi nga ñu ko tegal ba muy fippu euh, di di di di di di réagir tayu ko nekkul loo xamante ne lu mu tay la mais yëfu nit la quand même xam nga mamar yi mhm. dafa am loo xamante ni li ñu naan trop c'est trop gis nga même les Ivoiriens xam nga lu ñu wax trop bon trop con d'être bon une fois c'est bien mm -hmm. mais quand tu veux d'être euh, bon deux fois tu deviens bon mooy un six mm-hmm. Sénégal léegi dañoo dem ba foofu la ñu toll moom nit la am borom këram ñu koy jiiñ lu toll ni viol te mu yor ñaari jéegam benn ñoom ñu koy supporter bu ñu génnee di dem di liggéey ñu leen di barricade ñu toog ci kër gi ci conditions yooyu psychologiquement bu doon yow nooy def bu doon man nan laay def bu doon yow ñu may seetaan nan ngay def mm-hmm. nga mbàyyi mu jàll benn xale bu xonk cur taxaw di yàq lu mel ne xeme sa sa sa kër ak ñi topp ci moom jël seen espoir yëpp porté ko ci Ousmane Sonko xale boobu nga gis tribunal ak bëtam yooyu wow yooyu nga xamante ni comme ni ñu koy waxee moo taxaw fii naan sa jëkkër nii la mel fii nii moom la mel laaj ko robe bu ruus ba nangam nangam yooyu yëpp ñu koy def sa jëkkër nga ne yàlla te ngay jigéen ni moom mm-hmm. nga mën a supporter yooyu yëpp mm-hmm. tey nga ñëwaat à ta grande surprise beneen jigéen jóge fële di filmer ana léegi li nga xamante ni patu buleet ndax bul fàtte ñi bi ñuy def caravane am boobu di ñibbisi jóge si kee sox di ñibbisi dañu ko kar fi nga xamante ne mooy Koungheul violé ay droit am nan la ñu ko violé dañ la ñëw kidnappé dugal la ci seen fourgon yi benn confisqué lépp loo xamante ne mi ngi woon ci yow say téléphone portable ñu jël sa ordinateur ñu jël mm-hmm. say yére ñu jël sa sa sa sa sa sa arme ñu jël jël nag sa autorisation port d'arme ñëw ci sa xaalis lu toll ak une de deux millions jël ko déet waay ñu foto la foto bi li ci gën a doy waar mooy certain anita moo ko jël publier ko. Hmm. waaw loolu bokkul ci violation xanaa nit ki su fekkee nii da koy filmer dafa war a nekk si constantement am il n'est pas dit que ni nit ki da nga koy forcer wala dafa nekk ci nangam-nangam ba mu jaral kon quelle était donc l'utilité ci li ñu dind muy brigade bi lan moo nekk l'utilité bi lan lañ doon xaar ci moment boobu pourquoi. et ça va revenir après ci Ousmane Sonko li mu doon wax récemment dernière sortem ndax bu fàtte ni toog na mu ne focus leen ci li nga xamante ne mooy essentiel bi bi ñu ko waxee lan mooy essentiel bi dafa ne ñii lu ñuy ndumbalaat di koy waajal di koy murmural bàyyi leen xel ci wàll woowu loolu te loolu am na raison tey ndax nee na bu leen di focaliser ci vie bi am ci ci su may def sama live mais xool leen ñii lan lañ war a def nee leen affaire bi léegi fii la combat bi fii la nañu ko xolaatat. Ah, affaire bi c'est psychologique parce que ñu demee ba jabaram bokk ci combat bi mais mais mais jabaram. dama ne. jabaram moo yay force nañ jëkkëram yor ko yóbbu dugal ci fourgonnette yóbbu. Euh, dama ne bi ñu jëlee keroog Cheikh Baara Ndiaye. Mhm. jabaram dafa nekkoon en état. Coro mhm. Mandela bi ñu koy jël dafa nekkoon en état. Mhm. mais bu ñu tollee ci réew moo xamante ni léegi on s'est kii kan la ñu war a jox cër kan la ñu war a déglu. ma yi c'est parce que les choses deviennent sérieuses nit ñi n'ose plus dire la vérité du ñu nangoti wax li am nañuy wax nañu relater même bu fekkee ne dañoo jël yóbbu la kaso ñu xam ni au moins yow def nga li nga waroon def ndax yàlla nga jël sa teg teg jiital ko ci lépp. xam nga man daal la moom xaw a gën a jaaxal pour quoi à chaque fois ñuy jiital jigéen. pour teg dara Ousmane Sonko ci ndar man loolu yow xalaa balaa ngaa wax waxu waxu jigéen nga njëkk wax maanaam méthode bi ñuy utiliser pour jëli ji man dama jàppoon ni nit bu fekkee ni dañoo ne droit justice am na comme nuñ koy waxee ni ñu ko waxee mooy nit ki dafa am ce ko appelle mandat nit ki war naa am lu ñu la mën a notifier même su fekkee ne tey jii Ousmane Sonko dañ ko ubbil barakaas ba pare mais dañ ko ne. Mhm. bul dem fa nga xamante ne mooy su jubaay lépp lu mu ci mënti doon bu doon dañ ko notifier amul problème mais yow dootuñu la notifier. Mhm. du ñu def mandat d'arrêt da ngay toog ba ci yàgg à ta grande surprise nit jugee fële ñëw dëxëñ dëxëñ la yóbbu la. dajji nag sa kër Cheikh Bara Dia dañ ko fekk foofu dajji ko ki nga xamante ni yàlla ko yàlla yërëm imaam àll mm-hmm. Ndaw dañoo dem ba biir Kaolack fekk ko këram jagat jagate ko ci mag boo xamante ne tey anamu mi ngi ci barsàkk mm-hmm. ana ñu defoon jëf jooju lan la ñu war a layoo ana ñu defoon jëf jooju est-ce que duñu ko fekk ji foofu la ñu toll ci réew moomu réew mi nga xamante ni dama jàppoon ni même son excellence mi nga xamante ni tey jii lii dig njaag tey jii mën nañ mooy mooy njaag ndax moom la ñu jël suñu réew jox ko moom mooy suñu papa mooy suñu maam mooy suñu lépp moom président Macky Sall mhm. moom moo ne woon la la jeunesse vous avez compris mhm. waa moom lan la leen comprendre mooy ku yëngu ma dóor ma gëm ma dóor wala ma xef dóor loolu la comprendre woon jeunesse bi mhm. cependant ci ban contexte la ñu def lii contexte bi nga xamante ni tey jii on parle de de sévirement de des des proc ñi war a décréter li nga xamante ni mooy deuil national on l'a pas fait kon bakkan yooyu nga xamante ni dafa rot on parle donc de sécuriser ses frontières et autres avant ngay sécuriser frontière bi da ngay laaj lan moo waral xale yi di dee seen mbakkan bi di koy tayale ci géej gi mm-hmm. cependant ñoo ngi ñuy wax li nga xamante ni mooy accident bu am récemment mm-hmm. ñaata nit ñoo ci faatu plus de vingt leen lañu war a xool lan mooy cause accident yi fii la ñu waxoon dañu jël les vingt deux mesures fan lañ mën a nekk fan lañ ci nekk fan lañ ci toll dara nit ñaa ngi dee ci tali bi ñii ñu ngi dee ci géej gi mm-hmm. laa ñu ñuy waxati wàllum inondation man jàppoon naa ne yooyu ñoo gënoon a nekk ay ay ay ay maanam ay li war que di jëm di naan yaa ngi jàpp Ousmane Sonko te ku ci ne xam na ni jàpp Ousmane Sonko. li mu mën a jur bari parce que ñi jàppoon nañu bokk Ousmane Sonko ak Macky Sall tey ci suba maa ngi koy waxtaanee ci émission bi di Feeling Matinal jàppoon naa ne Ousmane Sonko ak Macky Sall toog waxtaan moo des ñoom ñaar seen diggante. kon cela cela donne raison Bougane Gueye. Mm-hmm. li tax mu ne bu Ousmane Sonko accepté daf may revenir aatoo ci Barthélémy Dias mu ne woon Macky ne mérite pas sama présence ne mérite pas man. ma dialogué ak moom Macky du nit bu ñuy jalogeel ay propos am la léegi ñoom fan lañu sukkandiku ba wax loolu ci foo xamante ni on a besoin de stabilité moo tax man bi ma toogee ce matin di dégg des informations comme quoi que xaw ma euh, le roi Mohamed Nangam. dafa ñëw naan day jéem a réconcilier petit peu. temps sa nañ jël ci ligne bi allo asalaamaaleykum. allo. allo oui sëñ bi noo def. allo oui maa ngi lay dégg noo def. allo. allo oui asalaamaaleykum. Feeling Dakar. waaw yaa ngi en direct sur Feeling Dakar. waaw euh, man maa ngi woote Rome quoi. Mhm. dama dama bëgg jox sama opinion rek ci situation bi nii. allez-y yaa ngi en direct. alors damaa bëgg ngeen déglu ma attentivement rek quoi. Mhm. Euh, gis nga gis nga gis nga même ñuy jouer film. Mhm. Soros yaa ngi may déglu. on vous écoute monsieur ñu ngi lay déglu. da dama ne même ñuy film. waaw. bu fekkee nit nit nit mu ngi romb. Mm-hmm. dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy. garamu kooku. Mm-hmm. lépp lépp lépp ci ci droit d'image. Mm-hmm. droit d'image. est-ce que loo loo lii lii lii lii lii du du Sonko la ñu waroon jàpp de. Mm. ndaw si lañ waroon jàpp même bu e gendarme la moom lañ war a jàpp. comment se fait-il euh, xool oto oto oto gendarme paan ci buntu Ous euh, buntu këru Ousmane Sonko ba pare di ko di di ko def ay photo ay kii mais c'est très normal Ousmane Sonko ne ko dindi ko. Mm-hmm. non Ousmane Sonko sax dafa baax baraan ba bara ko dindi ko. Hmm. mais bu fekkoon ne en Europe la fii. Hmm. mais mais du doy. lii dëri la lii dëri la dëri la bu ko kii agent boobu def. Hmm. ñu ne dañoo jàppee Ousmane ko sàcc